loxo jëmatina gëmiñ te yóbbaalewul ab tipp waaye gàcce amatina ci képp ku yorum xel mag ñi dañ daan lépp ne su xar màtte gan xaj mën naa rus Sénégal réew moo xam ne lislaam def na fa juróom ñeenti téeméeri Sénégal réew moo xam ne ay mag ñu baax la ñuy bàkkoo Sénégal réew moo xam ne ci biir ak ci bitti ku la gis la muy wax mooy réewum lislaam la Sénégal réew moo xam ne ay ndawam tey ñooy génn ci àdduna bi di gagné mbooleem concours international yi Sénégal réew moo xam ne am na fa ay collectif yoo xam ne la ñuy yittewoo mooy sàmm jikko ya ba nee nañ lenn bon du fa dugg Sénégal mooy réew moo xam ne waa réew ma yépp dañuy ànd di manifester su président bu am doole jiite benn paysan bu gën a am doole ci medd am monde bi waxee lu jaaduwul ci yonentam ñoom ñëppay génn naqarlu ko Sénégal mooy réew moo xam ne ab journal bu bindee ci kenn ci ay kilifaam réew ma yëppay génn naqarlu ko ba sax sunu état di ca bind ak di ca dox ci wàllu diplomatie ngir yu mel noonu arrêté waye paradoxal bi moy mbokk yi rew momu tay mo jaan ñoo jël kenn ci ay domam kenn ci ay serigne daram kenn ci ay kat alquranam waye kenn ci ñi nga xamne ñom la yonent bi na ñoo gën takat yonent bi lu mu wax yalla ko wax moy xayrukum man taallama alquran wa allamahu ñu fanan loko ci kasso ba fekk boba say say si ak wëyu yi ak sàcc si ñu ngi ci mbedd mi di taxawalu Sénégal moy rew mo xamne ab justiceam wala ay gendarme ki policier ñoom agresseurs yi mën nañu fee nekk ñiy def ay faux billets mën nañu fee nekk ñiy violer ak di rey mën nañ des ci mbedd mi waaye jàngalekatub alquran moom yóbbu ca kaso ba rek lañ xam ci moom waa xabasa mi réew fan la jëm bu daganoon dari nopp yuuxu su fekkoon am na njariñ bu doonum xel mooy xalaat te bu ko xalaatee teeg waccu rek a war a tege ci moom mooy mooy mi réew day ku ciy fanaan sa dara wóoratul mbokk yi tey mooy guddi gu jàll goo xam ne suñu mbokk wala boog nun ci suñu bopp wenn daggit ci ñun muy al oustaz maam góor njaay ñu fanaanal ko ca kaso ba ñu bari ci ñun dellu ci seeni lal xëy defar seen ndékki ñenn ñi fas yéene dellu ci seeni liggéey ñenn yi wut seeni soxla waaye fekk booba moom ña ngi ko teg ci roq fanaan loo ko ci kaso ba ci tooñ goo xam ne tooñ mosu koo jéggi yàgg naa am nag waaye nag saa buñ dëkkee ci réewam jayante ak jëwante ak waxante lu du dëgg fa ñuy mujj mooy ber di konte jéppante ak di xastante te fa muy mujj mooy fastante ay sikkim poñante dóorante te ci rayante lañuy mujj ñi yori nopp di déglu ñu yori xel di xalaat ñi war a artoo ko téye benn waay daana wax ne ku artuwul da nga atte te jàpp naa ne turo sa turo te duma la topp fa ngeen jëm daa soriwul kon kàddu yi may yëkkati bëgg naa ko xaaj ci ñetti mbir bu njëkk bi mooy lu xew dañoo nekk ci réew moo xam ne ay nit a ngi fi ne seen maam ab yonent la te it waxuñu sax ne ab yonent la yem ca waaye dañ ne mooy muhammadun rasulullah yamun ca te kat bépp jullit wala képp koo xam ne da ngaa dajeekub yonent te gëmoo ne ab yonent la ab yéeféer nga kon ñooñu seeni wax buñ ko tënkee mooy ñi nekk ci Sénégal te bokku ñoom gis-gis ay yéeféer lañ ñuy baas di dem ci télé yi di dem ci rajo yi di ko wax 24 heures te kenn du ci àddu waaye yemuñ ca nenañ seen yëfi bopp la waaye li ñëpp bokk mooy maa kaana muhammadan aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah ñu ne kooka mooy seen maam ñoom moo weexoon démb tey mu ñuul waaye nag yéen ñi gëm sayduna muhammad yéen ñi di ay julit bu ci seen yoon ne ñoom daal am nañ droit teg ci daru yonent bi lu leen neex waaye kenn du ne déedéet ñoom sañ nañoo weddi alquran ndax weddi alquran kat yàlla moo ne muhammad mooy xaatama nabiyin am ñu ñëw ne waaw mooy xaatama nabiyin waaye moo dellu si yàlla ñëw na yonent bi da ngay génn àdduna dañuy génn àdduna su ngeen génnee àdduna yéen ñëpp yowmal xiyaam ngeen di dajewaat ñu ne déedéet boobu aaya du dëgg yonent bi delsiwaat na fii ci xuri ndakaaro yi tañ ne kenn du ko wax nit jóg leeral pas-pasub lislaam ñu xëy ko nappe defe naa ne suñu sécurité réew su fekkee am na lu mu war a topp wala wara lu mu war a def dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg gumba am na métier mu dul tëbiteen réew mii li fiy agression par jour réew mii li fi ñàkk sécurité réew mii defe naa ne seeni alkaati ak seeni gëstukat waroon nañoo yittewoo lu dul fekk sëriñ daara ca daaraam ak jàngayam muy bax pas-pasub lislaam di jàngale diineem ñu naan da koy jàpp bu fekkee ñaaw am na su fekkee ne gor am na su fekkee ne xel muy teey am na war na noo dal na xam ngeen ne mii réew ci musiba la jëm te kenn mënu koo kar su fekkente ne defkatu lu baax yi ak waxkatu lu baax yi ak ñi war a taxaw taxawuñ bokk yi loolu mooy li xew ci jamono joo xam ne magum juróom-ñaar fukki at yéen ñëpp ngi gis vidéo muy wër toog nee na sëriñam a gën yonent bi te yonent bi alayhi salatu wasalaam mi ñu yàlla ne wa yantiqu anil hawa kooko weddina wax jooja ndax yonent bi nee na ana xayru bani adama ana sayidu bani adama bila faqr yonent bi nee na mooy sangu képp koo xam ne ci aadama nga jubata bi mu koy wax tiitaru taxut magum juróom-ñaar fukki at toog na weddi ko nee na sëriñam moo gën yonent bi yéen ñëpp a koy dara xewut ñi jël ñiy jëli sëriñ daara boobu itam amuñu fitu xool ko waxuma laa di ko tudd même góor googu nee na ay bay sëriñam ñoo gën saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ana ngor ana dëgg ana jubal kooko kenn waxu ko dara waaye du njombe ndax dégg nañ fi wax lu ko yées ku àgg ci sunu borom subhaanahu wa mooy diw sama sëriñ moo bind yàlla mi ngeen di jaamu yéen kooku pas-pasu lislaam anke la saaga waaye ñu tudd tey dikk walla ñu mën a doon yëngaluñ baraam wala loxo ci wax ju mel noonu dégg nañ fi yoo xam ne ku ko fi doon lim dang fi yendu yéen ñëpp koy gisandoo chaque jour suba goo yeewoo dégg bu bees ci kan ci yonent bi iblis mi nga xam ne boo ko tuddee ñu ne laxana laxanawullah dégg nañ ku ne jàmbaar la ci réew mi dégg nañ ku ne fekk naa yàlla mu toog ci réew mi loolu yépp manees na koo def manees na koo wax waaye ku ne fi Muhammad mooy mujjug yonent ku wooteeg yonent gannaaw Muhammad la ngay wax du dëgg ñu ne la kaay lañ jàpp la kon defe naa war na noo yokk kaso yi nag war nañu yok kasso yi ndax muhammad mom moy xaatama nabiyyin kep ku fi wote yonent ginaaw yonent ba la ngay wax du deug ka nga ne ab yonent la du yonent sayyiduna muhammad sallahu alaihi wa alihi wasallam ma nga ca bammel ye ya delsi wu du kenn ku fi ne mo delsi la ngay wax du deug lolu mom moy li am te lolu moy sunu pas-pas te lolu duñ ci négocier duñ ko moral duñ ko dak laqal duñ ko wër wëral ñak kersa gi dayo magum juróom ñett fukki at muy ahmed khalifa ñas gis nañ ko mu wër ci télé yépp koor ga ba ni di wër saaga bukhari ak muslim ak tirmisi yemu ci di saaga sahaba yonent bi alayhi salatu wasalaam di saaga yaayi julit ñi alayhi salatu wasalaam waaye yooya amul cafe te nëbbatuwut làqatuwut li muy def mi koy def alanan nan naharan wa lo loola ngay am allahu akbar tey ñu jëli ab sëriñ daara denc dara xewut ñun ñëpp ñu wàññeeku yeewu nelaw ndékki jàpp suñ bopp continuer toog ba kañ lañuy nangu ñuy rendi lislaam dégg naa mag daana wax na ci réew mii ku ne am na ko ko jooyal ba des lislaam tey nag ñetta xaw ne dañuy waxal lislaam ñu ne leen du ngeen ko fi waxe te bala maa dee nuy fëggi dënd naan quatre-vingt-quinze pour cent réew musulman ana jullit ya ana julit ya la yonent bi waxuna alayhi salatu wassalam ne da ngeen dem ba ragal nekk ci seen biir su boba da ngeen ni mujj melni ni dafa na ag nañ fa wala romb nañ fa mbokk julit yi ñaarelu message bi maa ngi ko jëme ci ñi nga xam ne ni ñuy gouverner mooy dafa mel ni bëgg lu neex ñi fi nekk la daa am ñu ñuy wut lu leen neex te it gëm nañ ne gëmuñ leen xam nañ ne sax gëmuñu leen waaye monnaie la danga may jox ma jox la am naa mbooloo comme damaa bëgg lu ma neex te itam dangaa soxla sama mbooloo su ma la yëkkatee jógal ñuy ragalante ginnaaw mooy diggante ñi jàpp ne ñoom ñoo moom réew mi boo ko wax lu leen neexut ñu portele la plainte ak ña ñuy porter la plainte te ñu yor armée bras armée réew mi doole réew mi justice réew mi di ko teg ci ci kaw ñu néew doole ñoom ñëpp laa wax na ñoo yem bay boo ñu tëdd di nelaw la ñuy def du jàll jeex na mii réew ci Sénégal kenn mënatu fee kar yàlla ne yonent bi nee na mii réew ci Sénégal kenn mënta wax ba alquran ak sunna du jolli mii réew ci Sénégal kenn mënta wax ba ku mu neex ku mu naqari ña koy def ak ña koy pexee ña koy xalaat ci seeni ndigg ki seeni sët al ay doomi alquran ak sunna danañ ci juddoo te kenn mënu leen a kar ci ku ne nag foo mën a bokk koo mën a doon ci sa njaboot tey kuy nokki ak di dund alquran ak sunna nga ci te mënoo ko dara kon bay boo ñu dallu yàlla waxoon nañu ko ba yàgg dañoo bëgg a fay leerug yàlla gi ci seeni làmmiñ tuuti nañ ki du sotti du am yàlla force dana mottali leeram gi te leer gi bàbbeeku na jóg na te kenn mënatu ko kar tey al ustaas maam góor njaaye fanaan ca kaso ba waaye junniy junniy ustaas maam góor njaaye ngi yor seeni téléphone di enregistré di wax lu leen mel ni li mu wax dama ne oustaz maam góor njaay dafa wax ne képp ku ne ab yonent nga wala sa ay yonent bi ginnaaw bi yonent bi génnee àdduna la nga wax du dëgg moom sax waxewu ko woo noonu daf ne amut du ku nekkul man maa ne la nga wax du dëgg ay sos la ay nar la te ku ko gëm sax ab yéeféer nga ah. loolay wax ji mu leer képp ku gëm ne yonent bi moo dekk ñëwaat ab yéeféer nga ku gëm ne sa maam ab yonent la ginnaaw yonent bi ab yéeféer nga ndax ku weddi alquran te tey ko ab yéeféer nga te alquran ñu ko wax kon ñi koy yéen ñi lëkkaloo moo xam ci ñiy porté ji plainte ak ña ñuy porté ji plainte moo xam justice ngeen tudd moo xam ay police ngeen tudd moo xam nu ngeen mën a tudd baye bo ngeen nelaw li ngeen di jéem du jàll te ku ñuy xoqatal nekkatu fi ñi ngeen jàkkaarloot seen aaya bi ñu gën a mokkal mooy qul lan yusibana illa ma kataba allahu lana te kenn mënu koo fomb ñetteelu leetar bi ma jëme ko nag ci ñi nga xam ne ñi ngi bank seeni yoxo ñi ngi tëj seeni làmmiñ ñi ngi toog ci seen kurus xëy joxe seeni bind seeni sëri seeni ndonga te a ah, mbokk mi de yàlla na ko yàlla xettali boo ca yemee yaay ki ci topp yow sëriñ daara bi boo ci yemee yow imam bi yaay ki ci topp boo ci yemee yow mi gëm yàllaa ko yonentam yaay ki ci topp mbajum kanam nag boroom a koy fajal boppam te it wolof day wax ne duma la topp fa ngeen jëm daa soriwut duma la topp fa ngeen jëm daa soriwut te bu ragal doon tax a mucc bu ragal doon tax a mucc am na ñoo xam ne dara du leen dal waaye kenn ku ne la yàlla natt ci yow la yàlla pare ci yow boo nekkoon fii mu burujin musayyana dana la fa fekk kon maa ngi woo mboolem ñi gëm yàlla ko yonentam ak fuñ mën a ne ñu taxaw temm jot jot na ñiy xëccoo àdduna muy politiciens yi bis boo laalee dara ci ñoom nga gis leen ñu xataraayu ba xotti seeni bassin ñun nag maleureusement tey ñëpp ak mën a yem komodo la ñuy wër fu nooy bëgg lu sedd ak lu yombu jàpp nañ ne ñun ñoo war a traverser daaw bi waaye kenn du ci ñàkk duñ ci ñàkk ñu ci tëj duñ ci yàq suñu alal duñ ci toj suñuy kër mënta ne yàlla nee na ndax dafa bëgg ñi gëm yàlla duñ leen nattu comme niñ natte woon ña leen jiitu woon yàlla ngi waxaat itam ñi nga xam ne dañ leen a lor ci seen sama yoon wii suñu mbokk ma kan ji yàlla na ko yàlla yërëm te dolli ko leer dafa waxoon ne kuy dem ci dëkk ñu tegtal la ay tegtal yoo xam ne boo jub dëkk ba da leen gis ngay dem di gis yooyu da ngaa war a xam ne yaa yoon wi kon sëriñ daara bii tey di joxe bind waroon nga ko rus sa jubluwaay tey moo doon nan ngeen di daje woo yéen sëriñ daara yëpp ndax kenn ci yéen lañ jàpp alxuraan lañ poñe ana ñuy organiser concours Senico ana ñiñ koy tuddee at mu jot réew mi kañ la fi naafeq di jeex kañ la l'hypocrisie di jóge ci réew mi alquran alquran dañoo man alquran te buñ jàppee sëriñub donga ngeen mel ni kenn ku ne yàkkamti ñu jàpp sa morom ba nga socc te asubuhum jamian wa xudubuhum satta guru xar kenn ku ne loo def ci sa biir la tax a jóg gurguru xar kenn ku ne loo def ci sa biir la tax a jóg kenn amut xelam boole kenn amut xelam jàppale kenn ku jàpp ne da nga sobe yow dong da ngay nax sa bopp wax ji nag mu gàtt mu gudd réew mii ñi nga xam ne seen pas-pas mooy alquran ak sunna ay doxandeem lañ fi kenn tegu leen ko ñoo ko teg seen bopp mag nag lu mu nangu teg ko ko dagan na collectif bii tey ñu naan ñoo porte plainte maam góor njaay matuñu leen deux pour cent suñ amee fay day taxaw di défendre seen bopp kon yen ñiy dund al alquran ak sunna nu ngeen mën a tudd ak association bu ngeen mën a bokk ngeen war a jóg défendre seen bopp làqatu jeeg wax ji suuf gi daan doy koo ci wax nag mu ne marxala makkiye yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo gënoon metti te fukki at la yéen ngeen bëgg ci def juróom fukki doy na sëkk nag marxala makkiyi fasda bi ma tuumaroon wa arid anil jaahiliin dafa jot sëkk ñu jàkkaarloog saay-saay su bon si naafeq yi ñu bon ñii nga xam ne dañuy bañ ku ne yàllaa ko yonentam ci biir penc mi te suba gën a wax fi musiba réew mi nag su ma nee permettre ne laïcité la ku ne am droit gem la neex kon ki gem ne mama may yonent bi bamuy takki radio ki gem ne du yonent bi sañ nako ko weddil da wax jox ko mu wax jox ko àggaguñ ci jëlu yet àggaguñ ci dorante nit nak soko téré wax bëgg-bëggam wala soko téré wax xalaatam lenen loko poussé ko ci poussé abonan entendeur duma la top fa ngeen jëm wut assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh